xam nañ jàpp na ci boo waxee sama Suufu Njaay xam nga ne ñëpp jàpp nañ ndax nag lépp def na ko ci këram bi ñu ci woo ñu ciy teew kon ñun kontaante ak mbégte rek la ñuy am ñi ngi mbégte ci ñëpp di moom président Mamadou Gueye ndax liw bi liw bi ngelaw ni te kenn xam na ku ne président bu tànnee Mamadou Gueye du njàngam la am moo tax du leneen la am moo tax daa am lu mu bëgg ci moom xam ne mun naa defar fii mu ànd ak ay naataangoom ñu teg ko ci kaw pour liggéey kon ci ñëpp jàpp danga koy jàppale ba mu jeex ba lépp am ba lépp sotti nga doog ko toog kenn xam ne ku ne ma duggee lu mu am jox na ko ñëpp tey social la xam ci social la njëkkee nitu social nag boo ko joxee réew dina ko àndal ki fi nekk nañu jox suñu caabi ñu jox ko président Mamadou Gueye ndax mënatu fee nekk te xajatu fi nit na bu xajatul fenn day dellu fu mu jógee woon sànniwu ko xeer kenn xas ko waaye na delluwaat fu mu jóge woon may président moom du koy mu ñëw toog ndax xale la macha allah te attan na réew mi attan na gox bi mu dëkk commune bi nag ci lañ nekk te dañ ko bëgg a xeer ndax kenn ku nekk sol nañ fii la ñu sol suñuy ndox fees bañ ko woowee dana leen dem leen xool seen président Mamadou Gueye mu defaral leen fi ngeen dëkk te loolu dañ koo jàpp bu baax yeew xaw ma kenn demee Lansar moom bis booba di ngeen dégg na école 6 école 21 école 12 battre international basaana man su ma dee président transar ñu teg ci nday ñaan e eh, président moom Louga da tool ñu dara mais dañ ko desel daal ndax te gis jigéen ñi toog xam ne ñu ngi ci ginnaawam te ñeneen ñu nekk ci ginnaawam damay gwaxtal ndax ku ne xamante ne heure bi dafa jot te dara xajul ci lépp xajul ci cin li nañ ci wàññi teg ci marmet ñi ci des lekk ci cin li jërëjëf kàddu lii rafet na bu ko defee ñu bu ko defee waa ambiance li nga di ambiance neex na lool waaye ngeen rek ndax ñu mën a njëkkanteeg waxtu wi mi ngi guddi te soxna yi ku ne xam na ni li leen war yëpp dafa bëri kon bu ko defee dañuy wéyal ci lu gën a gaaw rek dem jox nga xamante ni mooy directeur de campagne monsieur Malal Diallo moom la ñuy jox kàddu di bu ko defee lu mu gën a tënk rek gën a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sant tout d'abord dañuy jiital ci nuyoo bi suñu kilifa diini yi fi nekk di jiital suñu délégué de quartier yi ak notable li nga xam ne ñoo nekk ci quartier bi yëpp mënuñu aussi bañ a jiital suñu autorité politique yi fi nekk bu ñu tuddee le maire Alioune Badara Ndiob tuddee suñu papa Ema bu ñu tuddee Mamadou Diop maire APR tuddee responsable yooyu mën nañ leen ko jox mu mel ni tudd nañu Benno Bokk Yaakaar yëpp waaye dañ ñëw quartier boo xam ne dafa bokk ci histoire u Pikine Dagoudane ñu bëgg a jox nuyoo bi nag waa Dagoudane ñu fekk yëpp ak waa Aïnoumane Sefa ki nga xam ne mooy suñu frère mooy administrateur Mamadou Niang di beral nuyoo nag jigéen ñi nga xam ne ñoom lañ fekk ñu bokk convention citoyenne neneen ànd ak benn bokk yaakaar la présidente madame la maire Ndeye Niang buñ la nuyoo nuyu ne ñëpp di beral nuyoo la présidente madame Mbacke Souf Ndiaye Soxo ku ne xam na suñu diggante madame la maire maa ngi lay nuyu dina jox nuyoo dina jox sa wàccuwaay dina jox nuyoo benn bokk yaakaar yëpp ngeen may ma nag ma jox leen nuyoo ki nga xam ne mooy monsieur le maire président Modou Gueye fii ñuy wax ak yéen mi ngi nekk comme ñu nekk di liggéey ci beneen fànn tey ñi nga xam ne ñoo ne fii ci kaw bu Mamadou Diop teewoon kese wala maire Alioune Badara Diop teew kese wala le président Omar Sow teew wala Mamadou Diop coordinateur teew mel na ni ñoom ñëpp. moom mën nañu ko teewal te bu mu jëlee kàddu nañ ci ñëw man li ma bëgg a wax mooy li nga xam ne mooy daje tey bi dañ koy bind ci histoire politique bu Djiddah Kaw tey lañ moo ñu doon jaaxal mooy ñu gis yeneen i daje ci biir Djiddah Thiaroye Kaw te fii nga xam ne fii la dëkk ngeen gën ñu ko xam nekk ak moom di yeew ak moom di fanaan ak moom di ànd ak moom ci terrain politique tey su ngeen defee lu mel nii daje waxtaan sol yu rafet yii ñëpp mobilisé wu ne dañ koy sargal lii dafay dalal xelu képp kuy allié benn bokk yaakaar di jàppale président Macky Sall fii ci Djiddah Thiaroye Kaw fas yéene ko jàppale ku mu nekk maire Djiddah Thiaroye Kaw loolu dañ leen ci remercier bu baax a baax baax te day rassuré te day dalal suñu xel ku ne xam na ni benn sinistré fanaanatul ci école parce que président Macky Sall moo ko def ku ne xam na les routes en pavé tëli yi bëri na fu mu nekk dina caare ko le président Modou su nekkee maire le maire Alioune Badara Diouf accompagné ak ñi mu àndal ñëpp tey loolu dafa war a dal suñu xel programme bi nga xam ne comité scientifique baa koy liggéey ay borom xam-xam tëju waxtaan seen biir ci domaine boo mën a jël ci neuf domaine de compétence transférées nit ñi waslu ak di waxtaan ci mbirum école éducation di waxtaan ci mbirum li nga xam ne moom mooy santé di di waxtaan ci sécurité di wax ci culture ak sport programme boobu su génnee bu ñu duggee ci kër yi wax ak nit ñi danañ fal suñu candidat ma bëgg nag jeexal ci benn mbir dafa am koo xam ne dafa nekk seen doom mu nekk jigéen mu ñëw ci ñun ma bëgg madame Lo nga ñëw taxaw fii ma bëgg ngeen tàcc ko sargal ko madame la présidente ñu ngi lay remercier ñu ngi lay féliciter ñu ngi di dalal sa xel sa ñëw li nga def loolu nga war a def président Macky Sall moom dara donc euh, dañuy wax rek ni sant nañu yàlla sant nañu yàlla bu baax li nga xamante ne le président Macky Sall li mu ñu tànnal ki war a jiite liste Benno Bokk Yaakaar tànnul cuune du mu tànnee Mamadou Gueye pour mu jiite la coalition Benno Bokk Yaakaar daf ñu yombalal mbir mi daf ñu yombalal unité bi parce que mu tànnoon ku mel ni Moussa Gueye xëy na ñun du ànd ak moom mais euh, président Macky dafa tànn Modou Gueye ñun ñu xam Modou Gueye si terrain bi xam capacité xam xam-xamam xam donc dalam xam yiwam xam bëggam Djiddah Thiaroye Kaw moo tax ñun ñu décidé ànd ak moom man ku ma xam si Djiddah Thiaroye Kaw xam na ni du ànd ak ku ñàkk fayda donc président Macky li ma ko bëgg bëgg président Macky Sall lu ma ànd ak moom ànd moom bu tànnoon cere kon du ma ànd ak moom. à l'occasion de cet événement de sargal dédié aux plus beaux, aux plus jeunes, aux plus élégants et aux plus solidaires de tous les candidats jamais connus dans l'histoire de Djidah Thiaroye Kao. Je parle de monsieur da ngeen may permettre ma nuyoo nuyu ñi nga xam ni ñoo fi teew tey tàmbalee ko ci presse bi tàmbalee ko ci journaliste yi caméraman yi boo leen bëggee bis bi ala doome da nga leen ni woo ñu nekk def liggéey bu am solo ak seeni way xarala ngir jaarale information bi ki fi nekk ki fi nekkul ba ci président Mamadou Gueye fu mu mën toll ci àdduna tey Nous avons l'occasion pour suivre l'événement en direct. Contaïs Lansar qui est en direct. Contaïs, ce sont les amis de Mamoudou Gueye qui sont en direct. Grâce à la presse, qu'on y ait la presse, nous les remercier, de les encourager, de les pour cette ligue. Je vais présenter encore son pop. Je suis Moussa Ba, nous sommes du Tour Général. Je suis membre de la coalition. Benno Bokk Yakaar pour élire le président Mamadou Gueye pour que mu nekk le maire de la commune de Djidah Thiaroye Kao oh may leeral ndaxte da ciy baax yenn saa man nag bokkuma APR bëggoon naa mu leer aussi bokkuma Benno Bokk Yaakaar bëggoon naa mu leer aussi mais Mamadou Gueye dafa yor projet politique yor un contrat social yor projet de développement boo xam ni kum ci woo bu fekkente ni Djiddah Thiaroye ko moo la ñor ah nga war a daw wuy si ko ma ne nga a daw wuy si ko lan moo tax nga war a daw wuy si ko parce que Djiddah Thiaroye Kaw moo toll foo xam ne il faut que nit ñi jël seen i personnalité ak seen i ego teg ko sur le tapis pourquoi lii nekk sama ginnaaw coalition Benno Bokk Yaakaar ku nekk ma lim la ak sa dayoo ku nekk ma lim la ak sa daraja ku nekk ma lim la ak sa histoire politique loolu rek dafa doy tey ci discours waaye nag munu ma leen a ñàkk a nuyoo jaarale ko ci ñi nga xam ne jàpp naa ni boo leen joxe nuyoo nuyu nga ñëpp munoo wax Benno Bokk Yaakaar te waxoo la Lion de Djidah Thiaroye Kao muy la maman Safa Ndiaye Cissokho munoo wax. Cette coalition sans autant de tout, l'élégant, l'intellectuel, le très représenté, le très raffiné, M. Omar Sow. Mais mon aussi Benno Bokk Yaakaar te tuddoo ki nga xam ni te ji lu bëri lu ma ñeme ci moom moo tax muy lan monsieur Alassane Ba War may fàttali ni Alassane Ba War nekk na nit xam ne ku ko xam-xamee woon social. ku ko xam xamee ko aussi ci taxawu li nga xam ne moom mooy quartier bi tey boo demee fu mu dëkk muy ETT ODP lew na boo tuddee tëram dana la monsieur social may fàttali ne man ak moom monsieur Alassane Babois ñun ñoo bokkoon liste en 2014 ñun ñoo bokkoon benn liste en 2014 mu jël ma malgré moo jeune âge def ma la tête de liste proportionnelle dem diriger la tête de liste majoritaire avec courage tout le monde les résultats que nous avons eus avec la grande coalition ànd defar Djidah Thiaroye Kaw gëm suñu dox kon nag duñu ay novice ci politique doona yàgg a xuus ci lëndëm dañ yàgg a xuus biir commune bu Djidah Thiaroye Kaw yàgg teg suñu mëneel biir commune bu Djidah Thiaroye Kaw yàgg a def lu ñu mën ci population bu Djidah Thiaroye Kaw ma ne nag booy waxtee ci acteur développement dans la coalition nga gis suñu yaay Aïssata Talla nga gis le grand Sall ku xam Aïssata Talla xam ko ci développement ku xam Sall xam ko ci éducation ku xam Saliou xam ko ci li nga xam ne moom mooy engagement ñu am beneen Saliou sur le président muy le grand Asmay mi nga xam ne tey moom maa fi représenté lépp loo xam ne mooy du Sénégal en tant que représentant de l' autorité administrative en l'occurrence l'IEF de de de ce département. je voudrais dire chers amis que ñun le mouvement citoyen waa gox bi. li waral suñu retard sànq mooy depuis barki démb dañoo nekkoon ci ay porte à porte c'est vrai que le grand coordonnateur Mamadou Diop wax na ko meeting neex na may profité ci occasion bi di nuyu le coordonnateur de benn Bokk Yaakaar monsieur Mamadou Diop. le coordonnateur Mamadou Diop wax na ko sànq meeting neex na waa ambiance macha allah kenn du yéen ngéwal gi yéen a ngi rythme di yëngal macha allah suñu jigéen ñi kenn du yéen macha allah suñu jeunes yi kenn du yéen mais. expliquer leen que nous avons le meilleur candidat maa ngi profito di wax ne le grand conseil le directeur de campagne l'ami du président Macky Sall monsieur Malal Diallo wax na ko sànq Malal wax na ko sànq nee na sur le terrain il n'y a que Cheikh Dieng mais Cheikh Dieng dama bëgg le 23 janvier à partir de 14 heures ñu ñëpp ñu jug taxaw di wayandoo Cheikh Dieng na dem na dem na dem na dem Cheikh Dieng na dem

lu allons faire le terrain, nous allons faire les maisons, nous allons faire les porte-à-porte, -porte. nous allons demander à la population de la commune de Djiné-Thiaroye-Kao de voter pour le maire monsieur Mamadou Gueye je vous remercie. te li ñuy wax dafa jafe ni teg ci dara mais dinaa jéem quand même jéem bi mooy wax sama akulaay ala ci li ma xam ma xam mooy nuyu waa waa Touba Biguène waa Aïnoumane ak waa Lansar parce Touba Biguène keneen boobu man membre laa ci ba tax na man du ma gën ci koñ bi miin naa koñ bi trop xam naa ñëpp xamante naa ñëpp berwaat maa leen nuyu donc su may nuyu ñooñu laay njëkk nuyu parce que ñooñu ñooy suñuy famille ñooñu ñooy suñuy xarit ñooñu ñooy suñuy nit di leen sant aussi di leen gërëm ci jàppale bi ñu ñëw jàppale ñu tey accompagner le candidat Modou Gueye ñu tànn Modou Gueye tey mu ànd ak ñu jiite ñu parce que président dafa gis ci moom loo xam ne nii lu am fayda la mooy la mooy li ko seetlu ci moom ñun waa comité scientifique bi jàngat bi njàngat ci moom mooy biñ ci paree dañu xam ni que candidat yi ñuy am yëpp biñ ci déclaré que c'est le meilleur candidat naa pour dem doxantu naa pour loolu gis nañ ko parce que loolu nekk na ci feeñ na ci jàngam feeñ na ci yaroo feeñ na ci baaxam feeñ na ci tabeem feeñ na ci mën a nekk ak nit ñi da bi le meilleur candidat ci loolu bu ñuy wax bu ñu génnee ci loolu di wax yan opportunité la ñu de l'administration sénégalaise mu nangu sukkeeku dugg ci politique bi yoo xam ne yi nekkuñ ci politique mu tax mu nangu dugg ci politique jàppale su defee loolu am na opportunité yoo xam ne mën na ko indil ci de jaaree ko mën na ko indil de Pikine mën na ko Sénégal parce que ay fonction permettre mu am ay relation partenariat yoo xam ne ni ci Sénégal ak ci biti yoo xam ne mën na ko indil ci Djidda donc loolu yëpp njëriñ kese la donc suñu gisee koo xam ne kii amal nañ njëriñ xale la président tànn ko ñun su ñëpp suñu waree mooy ñu accompagner ñun nag tey bi ñu fi toogee di accompagner moo liggéey dañ ciy am kontaan trop muy man di Omar Sow di Sophie di Mama Diop di euh, di Malal Diallo di Bawa di ñeneen ak ñeneen ñu nekk ci parti yëpp parce que taxawaay bi foog ngeen comprendre taxawaay bi mooy taxawaayu lan mooy président tey su fi nekkoon nekkoon mbir dina jaaree ko moom mooy ànd ak Modou Gueye mais nag fonction au niveau national international permettre ko muy ànd ak Modou donc président ñi fi fal ndàmbal tax ñu mel ni suñu classe gi ñu mel ni ñoom Sophie Ndiaye ñu ñu mel ni ñoom Amma ne jege loolu mooy war waral ànd bi tey. wax ji rafet loolu day daanaka ñu ne léegi orateurs yi mat dañuy wéyal ci ñi fi desandi desandi rek bëriwul dem jox kaddu gi ci nu mu gën a gaawee ki nga xamante ni moom mooy. Euh, waaw le maire laay jox kàddu gi monsieur le maire Alioune Badara Diouf moom jox kàddu gi monsieur le mu toll parce que Lansar dellu na nekk benn. di jàppale sama rak président Modou Gueye su dee élection 2009 man maa gagné yi yore commune yi de Thiaroye Kaw ba 2014. Modou am na ndam ba pare suñu école 6 directeur de campagne li ñu la bëgg a yëgal mooy Modou Gueye dina am 90 pour cent. suñu école 21 dina am 90 pour cent. suñu école 12 dina am 90 pour cent. suñu école 27 dinañ am 80 pour cent. Salif Ndongo dinañ am 70 pour cent kon tey. moo ko gay mën naa karawaas te ñu dem tëdd nelaw léegi lu xew yore mairie yombul Modou Gueye am na yar am na teggin am na xam-xam xale yi bëgg nañ ko service de vente jaay nañ ko ba pare waaye service après vente moo jafe si tu vends ton produit après il y service après vente mooy yaakaar yii yëpp daje ci Modou Gueye ëllëg ak si biir yore mairie nekkul lu yomb mais su ko président de la république jàppale gouvernement jàppale ko le peuple de Djidda Thiaroye Kaw ñu jàppale ko li mu yor dina yomb te loolu baax na nit ñi dugal ko seen bopp Modou Gueye c'est le candidat des jeunes c'est le candidat des femmes nit ñi am nañ ci moom yaakaar te yàlla bu yàlla tas yaakaar ñun nag lépp lu ñu yoroon lépp lu ñu amoon lépp lu ñu xamoon mettre nañ ko à la disposition de Modou Gueye pour yàlla defal ko ndam kon ñu ngi santaat waa Lansar bu baax sant population yi yëpp di leen wax ne am nañu a te am mbégte di nuyu responsable yi dem fii yëpp lu parce que ñoo ñëpp lim nañ leen ba pare de satisfaction rek la ñu am mënoon nañ ko guddal mais li ngeen def fii tey jii man dinaa ko def ci biir Lansar dajale li nga am yëpp ci ci décaré ko ñu investir le président Modou Gueye asalaamaaleykum. jërëjëf monsieur le maire kàddu yi rafet na kon gars yi bii guddi bii guddi travail yi bëgg a jeex kon sans plus tarder damay jox parole bi sunu yaay ah sunu yaay laay jox parole bi xanaa su ma ko waxee yéen ñëpp war ngeen a xam ci ñuy jox parole bi. fi jaay si soxo comme moom jox kàddu gi ñu jox kàddu gi mooy Adja Sow Ndiaye si soxo ki ñu jox kàddu gi mooy la lionne de son excellence président Macky Sall qui est responsable des femmes. kii nag kii waa ki nga xam ne moo jël Modou Gueye ne ko yaay sama doom yaay sama xarit waaye ki war a bési mooy Modou Gueye lii dafa àllaa daw mel. bis bi lii dafa àllaa daw mel moo tax chaque jour mu naan Modou Gueye mooy jantal coofe roode doore njool ci kaw on ne les évacués dans son pour pour pays. l'homme qui travaille sans bruit avec rapidité et efficacité kookoy Modou Gueye borom tekk rek dégg borom lamsaar jantal coofero de doole Modou Gueye boo ko bëggee xam demal ci jàq yi moo fu mën jàkkee jumaa yi inondation yi hôpitaux yi malade yi italien yi ne ko pronto tuta bene Espagne ka tan Allemagne gutat morgan fa ne ko kumpara mankara kuma ko sa sabe anglais yi ne ko hewari mu ko am fayan gadam mani ñu ko wona big wona hatta gadam mani ñu suni ko da ko ñi na kanta bamba ñu ko ali sakoma damal Casamance sosé ne ko kontaan ko lante sukulo kolle njago ne ko butakala bulo république ci legal ko ci way aja ja sun ja ci ho kii mooy ki nga xam ne mooy taalibe Seexul Xadiim waa ji demoon maa yomba jaar wiri wiri waa ji waxoon lam yadul bil Mustafa siral wa jaxral fil baraya wa samadi njaay jaata njaay sëtu cukkili cukkili njigilaan njigilaan sere sere sa maam borom bi gis nañ ñeenti dama ne yal na yàlla guddal sa fan mu ne say cër ci barke Seexul Xadiim Soxna Ndiaye Sakho Awa Ndiaye bi sama laaj Ni xelam dalu ci du ko tànn comme moo ko tànn nag ñun waa APR tout l'appareil de l'APR danañ àndandoo jël Modou Gueye def ko suñu candidat woteel ko mu gagné ñu jël victoire bi delloo ko le président Macky Sall président de la République du Sénégal ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax di gërëm suñu àndandoo di gërëm toute la presse di gërëm góor jigéen mag ak ndaw yal na yàlla doon nañu jàpp doon yaakaar tey ñu seet saa mouvement des acteurs pour le développement ànd soxali suñu gox donc société civile ànd ak Benno Bokk Yaakaar pour que Mamadou Gueye mën a gagner les élections. man de li may wax mooy maa ak kilifa yi nekk ci suñu maire suñu jaay donc di nuyu monsieur maire. Aline Badara Omar Sow Modou Mati et Mamadou Diop mon ami n'est-ce pas Bénéral ñu doon un allié vraiment très fort li ñuy tax a jóg tey mooy xam na ñun ñii dañu war a gagné élection yi ñun bokkuñu ci ay parti ay mouvement lañ yoo xam ne dañ ñëw dooleel benn bokk yaakaar booleel suñu ñaatangoo tekki dara ci dëkk bi ndax ñun am nañ loo xamante ni am nañ ko ci nit ñi am nañ ko ci kuréel yi am nañ ko ci Djidah Thiaroye Kaw am ko ci Pikine ak ci Sénégal donc tey jii dañuy lu ne il faut que la main dans la main moo tax ñu mën a gagné élection ñun ñi nga xamante ni ay jàngalekat lañ ndax man maay directeur école privée Sëñ Saliou Mbacké di président école privée ci département Pikine donc yaakaar naa ne am na lu bari yoo xam ne mën nañ ko indi ci élection en tout cas li nga xamante ne ñu ngi koy wax mooy que ne ñun ñi nga xam ne ñoo ne société civile ñun ñi nga xam ne ñooy mouvement lu nekk dañ ko war a mën a def pour andi ko contribuer ci li nga xamante ne mooy la victoire du 23 janvier 2022. donc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jëral ñëpp nag di ñaan ñëpp ñu mën a nag soobu ci liggéey à partir de maintenant salaamaaleykum. président Macky Sall wax nañ ko ci ñi ma jiitu juumul ndax président Macky Sall depuis 2012 mu ngi ut lu boole njabootam mais yaakaar naa tey jii li gis du toog fii xam nga ni njabootu président Macky Sall ànd nañu te président Macky Sall bu njabootam àndee mën nañu soulever des montagnes incha allah le 23 janvier 2023 caaxi waxuma la dañ koy lakk mais day bënn. bal bi dina fa génn ba avancé ba leneen tegu ci ndam li muy bu weesoo Ndéri ji de Thialé kaw ñi fi toog am na leneen lu ci li ñu war a teel ko ji de Thialé kaw teel ko Pikine mais également teel ko Sénégal ci may jeexalee mooy fi ñëpp jeexalee mooy mbir mi c'est sur le terrain le mbir mi c'est sur le terrain D'autant plus que nous avons un candidat, comme Nico Gagné nous avons un candidat qui n'a jamais été maire, mais qui a déjà un bilan. Ce qui est extraordinaire face à un candidat maire sortant qui a un bilan extrêmement nul. Un, un, un maire sortant, vous nous donnez nous commune, c'est le maire de l'accaparement de notre pouvoir municipal. de quoi il s'agit C'est un maire qui gère de façon familiale notre commune. Après le maire, nous avons des... Vous passez maire bi, ña fa nekk ay jabar la ak i goro. mais bu ñu xoolee déjà suñu mbër mi nga xam te ne moom la ñu bëgg mu jeeti bi il est en de faire le contraire face à l'accaparement nous avons un maire qui va faire dans le désintéressement mooy lan xam nga koo xam ne dafa jël uuf si commune jox ko jabaram jox ko ay doomam jox ay jarbaatam jox ay gorom ñu bëgg faa maire boo xam ci moom dafa ne la ma mairie a delloo ci la ma koy delloo na ak askan bi yaakaar naa comparaison pour ñu xam ne président Bassirou Guèye c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il daanaka li ñu waroon wax yëpp wax nañ ko instant bi jëf rek moo jot wàcc waxtaan ak askan bi malal wax la ko léegi jeunes yi laay waxal nag ci programme Modou Guèye ñun jeunes yi dañ ci am wàll wàll boobu nag ci laa bëgg waxtaan ak yéen Mamadou Guèye moo ne suñ ko falee mu nekk maire dina jël saleeram am def ko caution ci benn banque. liñ ko waroon fay fi ak 5 ans mu jël ko financé ko femmes yi ak jeunes yi waaw loolu rek war na mën a tax ñun ndaw yëpp ñu xas suñu tànk tubay jàppale ku mel ni ku mel ni ci loolu jeunes yi am nañ formation ci programme Mamadou Gueye ku si nekk mënu jox liggéey ku si nekk mënu laa jox liggéey mais tey dina fexe ba jeunes yi ku si nekk mu fexe formé la ba nga xam ne suñ la joxul xëy sax nga demal sa bopp dina fexe ba jeunes yi ñu am ay emploi dina fexe ba jeunes yi ñu am ay formation laa gay moom may signalé léegi maire Awa Ndiaye dama ko fàtte woon di sama chéri rakk la d'État Mbaye Ndiaye dama ko fàtte woon mais di leen di xamal ne mbokk Aïnouma Lansar lii mbégte la si ñun lii suñu sag la sag nag da koy wone fii lañ am école 12 école 6 école 21 nañ fexe ba gagné ko à 90 pour cent mën nañ ko doomu koñ bi lañ ko defal doomu gox bi lañ ko defal te mérito na ko Modou Gueye lu mu am indi na ko fii kuy ngénte di nga tàllal Modou Gueye loxo mu jàpp si ku xewle Modou Gueye ñëw taxaw la lu xew si koñ bi Modou Gueye ñëw taxaw la donc loolu rek war na mën a tax si Modou Gueye su soxlaa ñu jàppale ko soutenir ko taxawu ko wàcc ci askan bi waxtaan ak ñoom fii sax pour man campagne amu fi ñoom Alassane Bawar foog naa ñoo xaw am tuuti pression rek mais Aïnoumane Lansar moom donc suñ tëddee nañ nelaw te xam ne danañ ko gagné incha allah ci kàttanu yàlla maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp. am na yàlla doon sutura waaye bëgg naa sama grand frère bi dugal. waaw Fallou loolu euh, da ngaa waaye li nga wax kenn duñu cee teg xanaa a fàttali ni euh, président bii ay góor rek la fi dox ndax te li nga wax léegi muy l'ancien maire Aliou Badara Diouf kooku su dee nombre de terrain xam na fii wax na sànq nee na yow léegi yóbbul promettre na itam fee bu féetee pour cent la tax mu ne fële 80 pour cent Salif Ndongo 70 pour cent. il se connaît très bien. Euh, man ba bu ko waxee da ngaa naan man xam bi euh, Omar Sow bi euh, PCA wu Sere kenn waxatul engagement auprès du président Macky Sall kii di El Hadj Malal Diallo nga xam ni Macky def ko bëggal boppam muy am lu confiance fu mu jëm ànd moom waaye lu mu ko jox mu joxe ko. lu sax Macky Sall ci boppam reproché na ko ni ko xanaa yow bëggoo ko joxe rek. kii di coordonnateur nga xam ni c'est l'honnêteté intellectuelle incarnée Mamadou Diop. par exemple damay reconduire tous les coordonnateurs ah. moom ba muy investir Mamadou Gueye bon président di porté bi pour sant Mamadou Gueye. Mamadou Diop sa ngor yàlla na ko yàlla fay. keneen teg ginnaawam euh, ban poste boo amul importance nga occupé fii mooy Adja Sophie euh, Sophie Ndiaye si soxla. ban poste bu amul responsable responsabilité yéen ñu occupé wul ban projet de développement yi la fi doxalul fii ku fi jigéen jàppale na la ca du dew jëme waaye li nga wax ci Modou Mati kenn dafa mu loox lu ko passé ndax euh, am na loo xamante ni bii euh, lu ne fànn kenn du ko jeex euh, moom mën naa wax ni ngaddu goro la rek moom diggante mag Modou Gueye parce que li nga wax nii léegi ni Modou Gueye néewu fi waaye il prend tout en charge et sans bu ci teg baat bu ci ngaan loolu néew ci loolu moom dafa war rek kenn nag da nga wax wax bu am ah. la ni moo duggee c'est am na dépense am na teraanga day tere liggéey am ardi mënoon naa toog ni man damay toog rek gaaw croiser les bras mais ñoom ñii ñëpp ñi de caaroy kaw leen yàlla nanu yàlla may ndam bu set ci barke Sidina Mohamed ak ci barke xas yi ak ci yàlla jox jërëjëf grand frère même bu fekkente ni guddi na yi dama leen di bëgg a bàyyi loo xel ni leen maa kumba mii li tax ma jox ko yàlla dafa dogal département Pikine bii communicateurs yi fi nekk danoo am lu leen tënk association tënk leen yàlla dogal moom mii muy secrétaire général féetewoo président dugg Gueye ba ñëpp xam ko kon bu duggee ci biir jataay bu mel nii dafay yell ma jox ko waaye man sama diggante président Mamadou Gueye doxale wu ma fa kenn ku dul sama bopp te Mamadou Mati Niang mii mooy président Mamadou Gueye délégué de quartier Lansar di suñu papa El Hadj Seydou Lam di nuyu délégué de quartier bi di nuyu imam bi ak notable bi fi nekk yëpp di nuyu délégation bi nga xamante ni ñoo fi le président Mamadou Gueye tey su ma si limee Mamadou Diop coordinateur benn bokk yaakaar lim ci monsieur le maire Aliou Badara Diouf lim si Omar Sow PCA lim ku mel ni Bawar Baba Si lim ku mel ni Matar Dieng lim ku mel ni sama grand Ousmane Ndoye ak Moussa Ba je pense que lim naa ñëpp bu dee si wàllu soxna yi su ma jëlee nuyoo bi teg ko si loxo yi suñu yaay Sëpp Ndiaye mu jox mu teral ma si loxo sama mag Ndeye mu teg ko si loxo yi Aïssatou Diallo ak ñoom suñu yaay Absa Diakhaté ñoom Mati Bey kon nuyu naa je pense soxna yëpp fàtte moom Malal Malal Diallo ndax moom mooy suñu directeur de campagne moom mooy le président Mourou Gueye man nag euh, kaddu yi day kaddu du kàddu yi propagande ndax jàpp nañ gaay nañ ba pare ku ànd ak Alioune Badara Ndiouf ànd ak Mamadou Diop ànd ak Omar Sow ànd ak Moussa Ba ànd ak Aïssata Talla ànd ak Sophie Ndiaye ànd ak Malal Diallo la kàddu sargal la ki may sargal muy le président Mour Gueye ki nga xamante ne mooy xarafal suñuy doom ak suñuy jarbaat ki nga xamante ne mooy tabaxee ay salle informatique suñu école yi ki nga xamante ni moom moo ñuy organiser ay fan zone ki nga xamante ni jigéen ñi ngir ñu dajaloo mu dem seen lekkat jox leen xaalis ñu liggéey ki nga xamante ni mooy formation yu jeunes yi kooku lañ war kooku lañ sargal tey à ma tamal nañu lépp kon toogaay bi yàgg na guddi na waaye faa ma sant suñuy mag yoo xam ñu ngi si koñ bi di ko teg si loxo yi di bëkkan les amis de Modou Gueye maa sant bu baax baax baax si yàggal bi lépp lu ñuy def yéen ko moom te yàgg naa ko wax ñoom Mbaye Dieng ñu ngi si maa ngi maa ngi gis ñoom Ousmane Sène ak groupe bi yëpp sant nañ leen baax gërëm nañ leen baax yéen dañuy liggéey yéen moom bis bi xam naa bëri li si wax yëpp ñu ma jiit wax nañ ko sant nañ bu baax dem naa bu baax kon ñu joxante rendez-vous le 11 incha allah meeting mobilisation bi ñu def ag d'investiture bi ñu def pour le président Modou Gueye nañ ko waajal Modou Gueye Lansar la dëkk ak AFP euh, suñu soxna si ñu tuddee madame euh, Faye Sall c'est du premier au ñu waajal ko képp ku am ku feebar bëgg a faju bu ñëwee dina sa faj te du fay dara ndax madame Faye Sall jàmbar la kon maa ngi santaan ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp